بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Ah, yéen way déglu yi nga xam ne yéen a ngi may dégg ci mbooleem goxi àddina yi moo xam muy Sénégal moo xam muy Gambie moo xam muy Mauritanie moo xam muy Mali moo xam muy Italie moo xam muy France moo xam muy Belgique moo xam muy Hollande moo xam muy Allemagne moo xam muy Amérique moo xam muy Afrique du Sud moo xam muy fu mu doon ci fu fi nit nekk te dégg dama te buñ la nee damane ne nga ne haa yéen ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak mucc ak wér di leen jox leeral goo xam ne dafa aajo leeral moo tax ma di ko leeral waaye su bàyyi bu a leeral dama koy bàyyi mu nekk ci lëndëm yàgg ngeen a dégg gandigaal ak pajum cosaan dëkk bi nit ñi njëkk a jóg dem fa di fa jële ji ay garab ci wàllu pajum cosaan ci Sénégal di loo xam ne Sénégal yëpp ñoo ci ànd mooy gandigaal mille six lañ sancoon dëkk bi damel ju nekk sangu nga fi ñu takkala dalub gandigaal nga dem door a falu ku sa falu ci kajoor wala bawal indi nañ la gàndigaal loola séréer yi nga xam ne ñoo moom suuf si ñoo fi dëkkoon sant fay ñoom ñoo yoroon xam-xam boobu waaye ba yàlla defee loola jàll itam ba diine ñëwee xam-xam boobu dafa continuer góor gi maam Ibrahima Seck nekkoon na fi doon muqaddamu Sidi Aji Malik ibnu Ousmane yore fi daara di fi jàngale di woote cooni yàlla gi maam Cheikh Madiagne Gandigal nekkoon na fi doon seexu murit yore daara di yar ñi jëmal leen ci yoonu yàlla ba fi mag ñi jógee itam ba léegi am na ay ruusig yu fi des ndax seeni doom ak seeni sët ñi ngi fii amma pajum cosaan nag li ko indi Gandigaal te xam ne nekku fi woon ki ko fi indi ñu ngi koy tuddee Cheikh Guèye Gandigaal te mooy wax ak yéen man maa ñëw Gandigaal fii 1986 1985 1986 dëkk fii jóge woon dëkk bu ñuy wax njaarim doon fa jànge doon jànge ci école arabe Serigne Cheikh Mbacke boobu ci njaarim doonoon dongob waa ndemeen ndax waa ndemeen ñoo yoroon école ba ñoom ñoo fa doon jàngee ñoo fa doon jàngale li ëpp ci li ma xam ci pajum cosaan it ci ndemeen googu la jóge ndax nit boo dee gor doo yor jikkoy purux da war di gërëm ñamu daaw lépp loo xam foo ko yàlla jaarale ba nga xam ko dangay nangu ne foofu la ko jaarale faj mi may def doonuma ko ci ndey doonuma ko ci baay doonuma ko ci maam doonuma ko ci maamaat aram jàmb moom mu ngeen dégg yu sëñ mu duggee yal na ko yàlla yërëm mu daan ko wax sunu maami yaay la man xamuma ko kon moom mënu koo xam moom xamul woon sax sama maam ji jur sama yaay faf booy xam sama maamu yaay ndax dëgg yàlla daf koo bëgg ndax inna laa wal xaq inna laa yaqulul xaq wa yaddi sabil al wasnu yawma isinil xaq yàlla mooy dëgg te yàlla dëgg la bëgg te yalla ci bopam po ba muy attee yowmal khiyam jam ñi di tek ci balance ya po ba ci bopam deug la tuddu ku fa yobul leneen lu dul deug dëgg doon kon ab julit buy wax day wax lu clair lu net lu leer lu am ab ëkk luñ mëna a lu leer nañ ni bëccëk man sax gal may wax ak yeen paj moomu ngeen di dégg ñi di ko wax pajum cosaan di ko adressé gàndigaal man nii ci man la jógee gàndigaal fii la paj moomu sosoo benn bas Diagne ak Amadou Sila ñoo ko yëkkati ak Ablaye Lam ci rajo Dunia ba ñëpp dégg ko li coow li di bari bari ma noppi di wax ci diine li taxoon ma def ko mooy sama rakk dafa nekkoon yéen ko yàlla yërëm di wax di wax ci sama tur di wax ci adresse gaal Gandigal doonte dëkku su Jurbel la dëkk waaye nag la Baye Cheikh Tidiane waxoon rek ca ratt katam nag ba doon ratt ca gannaaw nii ba bàyyi ba ne kuy rat kuy kuy xubbi sama nag bi foofu taaw bi ne ko bàyyi man la de mu ne ko ah yaa fii ciis noonu maanaam nit munta soxor ba soxore aw deretam munta soxor ba soxore rakam ba nga xamee ne xam na ne fi jëlee sama tur ak sama adresse yóbbu ko ci biir réew mi itam dina ko amal intérêt def na ko soppeeku bàyyi moo duggee njaarim tudd moo duggee gandigaal d'accord naa ci loolu mais dëkku fi il faut nous dire la vérité pajum gandigaal fii ci sama kër la ci saano fii la dëkk sama doom génnewu ko sama rakk moo fi ñëw génne ko yóbbu ko Dakar gandigaal seexoo waa dakaar mu nekk gandigaal gandigaal ak gandigaal adoptable mooy gandigaal Dakar ñu dem ba yàgg mu jëlee ko Dakar yóbbu ko Touba mu nekk Gandigal Gandigal Gandigal Dakar Gandigal Touba mu toog ba yàgg mu jële ko fa yóbbu ko eh, Daara Jolof léegi mu nekk Gandigal Daara Jolof Gandigal Dakar Gandigal Touba ak Gandigal original ba yàgg mu jege ko fa yóbbu ko Daarul Mooti ba coon fa sama rakk bu ñu wax Alaaji Faal ñi joxe garab bi ci bind turu garabu Gandigal garab yooyu ñu daan joxe amu ci genn gu ma sa jege gaan di gaal ndax nit day wax dëgg su ragalee yàlla turu gàndigal daal jëloon nañu ko ak sama adresse yóbbu waaye mësuma defar garab jox leen ne joxe leen ko seen garab yi bopp lañ doon defar di ko joxe loolu déjà passé na léegi lu teew li loolu lañu ñu war a wax li teew te ma di ko leeral Sénégal yi bëgguñu dégg ko mooy amul fennati ci Sénégal fu nit di toog di tudd Gandigaal dafa joxe garab te Cheikh Gueye moo ko ko sant te itam mayetuñu kenn ci Sénégal kuy joxe garab ci dëkk di ko adressé Gandigaal li tax ñu bañ ko lenn la bu ñu demee ba catastrophe am ci catastrophe boobu man dama ciy duggu Nanti mana? Gara berganti-galikan, mau melondon coklat tu barat dah sunik kulit dana. Walau gara berganti-galikan, melondon coklat dah kato, info madega sama responsibility. Sama rakan nekon nafi, dan joxe garab di ko tudde garab bi gandigal yalla jele nako tu sen negara garab gu di ko diko ganti gandigal tu du fi ci sama kër lañ koy joxe lolu dafa wara ler. ndax man mënuma nek sénégal doon ab sénégalais di leen munuma nek senegal doon ab senegalais ñu di leen nax ma di ci and damay wax lu leer na ñi man sax Gandigal may wax man mi di wax may sax gi Gandigal ma gi wax ci bir Gandigal legui la jikko ci jakk ji fala julle ma maa sama nek kon damay wax lu leer lu melni midi dama ne senegal ba mu daj ak fenen football senegal la ci amatu genn garab guñuy ci réewum Sénégal mbaa bitim réew di ci bind Gandigaal di ma ko adressé jeex na te it nag bu sama rakk jooju jàllee ku ko fi defati dinaa ko siq ak yow ku fi defati sa garab nang ci def sa adresse mayatuma kuy defar garab di ci def sama adresse xaj nag munta màtt dër gi ci baat bi bari na loo xam ne ku la jege dina la ko def nga muñ mais bu la ko jàmbur defee da ngay réagir fat ko ci saase loolu laa bëgg sénégalais yi ku jot sama kaddu gi bu fekkee mas naa laa jëriñ dara mbaa ma mas a wax ci pajum cosaan lu la jëriñ mbaa ma mas a wax ci diine lu la amal njëriñ li nga may fayee mooy ku jot sama kortas, gi na nga ko tas na wër ba ñëpp dégg ko na egg fépp ndax sama der laa bëgg mu set wicc li des ci sama dundu mayetuma nit ku joxe garab diko adresser gandi gal ci Cheikh Gueye du leer na na ko buur dégg ku fi bëggati garab goy jël te muy garab bu gal jël si ku fi ci sama keur ten du wër di wax ne kay len rodma ten day tok fañ ko gas ku bëgg nan fekki ko fa ku bëgg bamba touba ngay dem du li ma wax leer na loolu lay déclaré na ko sénégalais yépp dégg du Ndakaaru du tuuba du Daara Jolof du Kaffrine du Daaru Moti du fenn ci àddina fu ñuy joxeeti garab di ca bind turu Gandigal di ma ko adressé loolu sama rakk ko doon def jeex na képp koo xam ne nag dégg nga fenn fu ñuy joxee garab ci réew mi muy ndakaaru muy Touba muy feneen di ko adressé Gandigal nga dem di ko fa jëli te sama rakk joxul la ko nekkatu fi lu la ca fekk yaa ko yaa xam waaye sax nga yoonam nekku ci ndax damay dégager nag sama responsabilité ndax nit war ta mën a nekk mbaam mu tëdd rek ñun ñu di ko mu ne nemm ñu di ko sëf mu ne nemm ñu di ko sëf rek mu ne nemm ñu di ko sëf rek mu ne nemm loolu mënul wéy bokkuma FENATRAS bokkuma FETERAS bokkuma ci benn fédération buy def médecine traditionnelle ci Sénégal individuellement laay demee maa ko njëkk woote Sénégal ñëpp di ko dégg jënuma Gandigal ci laa nekk ku ma soxla nag ma fekk Gandigal loolu daal laa ne woon dinaa ko déclarer képp ku fi bëggati garab goo xam ne garabu cosaan gu ñuy faj la te nga bëgg ko ci xeetu garab gu ñuy tuddee garabu Gandigal soo ñëwul ba fii ci man foo ko mën a jële joxuma la ko te kala ko jox santuma ko ko du leer na sama rakk fi doon joxe garab di ma tudd yàlla jël na ko yàlla na ko yàlla yërëm annoncé na woon fépp nag ki Sénégal ne man maa ko jox ndigal ne na naa ko naay joxe garab eh, su fekkee maa ko ko wax du amul problème su fekkee waxuma ko ko it amul problème waaw dégg ngeen li ma wax su fekkee maa ko ko wax amul problème su fekkee wax ma ko ni amul problème mais nag noppi woon naa ne pat ñu naan am gandigal indi gandigal am gandigal indi gandigal même waa gandigal jaaxle woon nañ ci seen gandigal gi ni ñu koy lawte lawtee ci Sénégal mais loolu jeex na tey ndax man su dee wax damay wax lu leer ndax xaw ma balaa suba dinaa fi nekk wala dinaa fi jóge li fi jógee sama rakk man na ma fay jóge te du ma fi jógee bàyyi fi tappalekat yoo xam ne dañuy jëli garab di ko joxe di ko adressé Gandigal te waa Gandigal seen yoon nekku ci joxewuñu garab joxewuñu garab sax jee dëkk Gandigal di ko joxe waaye du keneen ku fi nekk di joxe garab te lenn loo xam ne nag nit def na ko fi ci wàllu pajum cosaan muy charlatanisme wala nax nit ñi ci seen alal wala jox leen loolu leen amalul njëriñ bi tuddu gandigal dañuy koy fu nit génne ci gandigal dem boo ne gandigal la dëkk dañuy xool ne ñi ay client lañ te gandigal seen yoon nekku ci man maa fi joxe garab man Cheikh gi gandigal may joxe garab ci gandigal képp koo xam ne moo duggee doon na la jox garab te mu yoreel la bor boo xam ne daf la koo laajoon muy alal ji joo xam ne ju leer la te nga yoru te nga bëgg te garab ga doy nga di ko jël soo ñëwee ci man dinaa la ko jox koo ci xam ne nag joxoon na la garab eh, joxoon na la joxoon nga ko xaalis mu war laa jox garab te joxul la ko toppi koy doomam ñoo la koy fay man waruma gàddu ay borom ay doomam ñoo ko war a gàddu leer na loolu laa bëggoon ne dinaa leen ko leeral ba mu ne naññ paj mi itam mu ngi continuer fii ci Gandigal comme ni mu fi doon continuer bu njëkk xëy na nit ñi li ñu bëgg ku bëggee ko man li ñu bëgg ku bëggee ko man bu waa Touba toogee Touba nekk sa gee da nga ñëw faj ñu Touba waa Dakar toog Dakar nekk sa gee da ñëw faj ñu Dakar waa Tamba toog mënut nekk xëy na mën nañ laa yónnee garab par distance waaye ci kaw fekk nga xam li la dal yow nga xam li la dal soo xamee li li la dal te loolu la dal ñun am nañu garabam nga wooñu ñu jokkante ak yow mën nañ laa yónnee garab bu fekkee fa ngay nekk garage bi ci mbuur oto bu fay dem am na fa ndax maa ngi koy defal ay nit waaye départ fi taal sama oto ñëw ba Tuubaa moom su ma ko defee su ma la fay koo garab gi doo ko mën a fay waaye képp koo xam ne kii woo nga ma ci numéro bi nga xam ne moom laa leen di jox mu di soixante dix soixante dix sept zéro dix neuf quatre vingt quatorze treize soixante dix sept zéro dix neuf quatre vingt quatorze treize numéro boobu léegi mooy dox ci wàllu pajum cosaan soixante dix sept zéro dix neuf quatre vingt quatorze treize képp ku ma ci woo dinga ci am lu la leer loolu daal la waxoon ne dinaa leen ko leeral fii fi Gandigaal nag ay garabu un million amu fi ay garabu cinq cent mille amu fi ay garabu quatre cent mille amu fi ay garabi trois cent mille amu fi garab yi ñu ci doon joxe nañ ko doon joxe na lañ continuer di ko joxe képp ku ñëw te ñu am sa garab li nga mën a jël muy sa kàttan loolu lañ lay jox noonu laa ma di joxee garab gàddigaal boo fi ñëwee mille francs danaa la jox garab mille francs xanaa dimbal jaam ñi rek taxatu ñu di ko def boo fi ñëwee deux mille dinaa la jox garabu deux mille soo fi ñëwee trois mille ma jox la garabu trois mille soo fi ñëwee lu ëpp vingt quatre mille du ma la jox garab waaye mille ba vingt quatre mille mën nañ la ko jox ci waaye lu ko passé du ma ko jox nit ndax su boobaa xanaa kooku daf ko jaay ji mais demul pour di ko fajo ji loolu laa leen di leeral ba mu ne nañ gàddigaal amul ticket yi ñuy dagg di fay non ndax yow soo ñëwee ci man ma dagg loola ticket cinq mille wala ticket deux mille wala ticket mille cinq cent léegi ma dinaa la jox garab même bu ma xamul leneen sax dinaa ko tappale xam nga lan moo tax dinaa ko tappale mooy cinq mille bi nga dagg ticket wala deux mille cinq cent bi nga dagg ticket wala trois mille bi nga dagg dagg ticket bëgguma la delloo xaalis bi te léegi su ma la consulté li nga li la daal mënuma koo faj su ma la nee aw ma garabam nag ma naan dagg ma amul sama garab delloo ma sama xaalis te su ma la ko delloo dit bàkkaar lay doon ci man man duma ma daggal kenn ticket di la laaj xaalis da ngay ñëw ma defal la consultation xam li la dal am sa garab jox la ko su ma ko amul nga dem noonu laa mas di te noonu ci lay continuer bu kenn xalaat nag ah moo duggee jege ne fi affaire bi eh, da da da du continuer Gandigaal fa mu nekkoon jógu fa tey la wàllu gën a ay Cheikh Gueye ma tuddoon Gandigaal ma nga fa fi moom lañu doon roote di yóbbu ci xam-xam fi lañ doon roote di yóbbu ci ay garab fi lañ doon di yóbbu ci tur ndax turu Gandigaal lañ doon demee tur woowu ñu doon demee nag ñibbi siwaat na biir Gandigaal te joxatuma ko kenn ko yàlla bind loolu moom dama koy wax mu leer nit ñi nañ incha allah dinañ duggaat ak yéen ci leeral leen feebar yi ñuy fajoo fii ci biir gaal benn par benn ndax ñun xamuñu lépp mënuñu lépp li docteur yi di faj lu bëri ñun xamuñu ci dara buñ oppoon dañuy dem ca ñoom faju ca ñoom médecine bii ñuy def muy médecine lu cosaan day complété médecine moderne bi fi nekk nga xam ne dajal na fépp waaye médecine lu cosaan bii mënut a remplacer médecine moderne loolu moom wax naa ko ba tey nit ñi di ko dégg mais wax yàgg naa koo wax moom dalaa réew li ba noppi nga dal koo xeeb docteur góor gu ko xeeb dalaa dugal néegu góor ba nga ba nga nekk waxambaane nga dal koo xeeb docteur moom kenn mënta dund te doo jaar ci moom waaw waaw soo ko xeebee tey góor rek bu la ne maa la tax a doon julli rek gagné na la kon il faut ñu respecté ñoo respecté leen joxe seen gëdd ji nga xam ne moom la leen yàlla jox bàyyi li nag la ñu man te li ñu man ñu nekk ci man noonu laa mas di doxee ba ma déparé ba léegi te noonu lay continuer di ko doxee incha allah danañ jël si waat gën a indi ay leeral bu ñu ubbiwaatee wàllu garab yi daan jàngale ndax danañu jàngale garab yi comme nañ ko doon jàngalee li tax jàngalee wóotumu ko woon mooy sama rakk daf ko doon jàngale ba noppi di ko déglu muy wax ndax ñaari ñu bokk ndey bu ñu bokk di waxatoo ci benn domaine eh, xëy na nag na mu doon jàngale ak ni may jàngalee du nekk benn ndax man ak sama méthode moom ak sama méthode bu dee maa ko jàngal itam méthode boppam la doon demee man nag mosuma changé dama nekkoon ci lay continuer yàlla ko yàlla yërëm te yàlla ñu yàlla yéexe ñun ñëpp nañ gudd fan ay gudd fan bay ci loolu door fay jógee te lépp lu fi ni jël ci garab ci gàddi gaal yàlla na la yàlla na la fajal sa soxla wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax ji nag maa ko def mu doon déclaration képp ku ko dégg te xaw te te xam ne sax gi mas na laa jëriñ lu toll na tarafatal ay nii te ko na nga ko sànni sa morom ba Sénégal yëpp déggu ko loolu la bëgg képp ku jot ci ñaari audio yii na ko tas ak foo ko mën a tas bu dee site internet nga yor man ko ko caa dugal bari na nag site internet yoo xam ne dama départ ak ñoom ci ay ñetti nit ba léegi ñu ngi ci ay vingt mille personnes te fay ku leen dara dama leen di jox ay xibaar di leen jox ay xam-xam di leen jox lépp ñuy tasaare nit ñi di ko déglu ñooña bor bi ma bor bi ma bëgg ñu fayee ma ko tey mooy nañ tasaare sama déclaration bi ba àddina gépp dégg ko bu fenn des wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu